législative yeeg coowal fichier bi ñëw na foofu tam laataa ñuy dugg ci élection yi mais dafa mel ni buñ ko cofee duñ ci dugg ba ci euh, duñ ci dugg wala duñ taxaw nara def benn bloc pour li nga xam ne moom mooy gouvernement bi gën a leeral euh, li nga xam ne moo jëm ci wàllum fichier dañuy cof li nga xam ne mooy coow li rek ñu continuer wéyal li nga xam ne mooy seen programme yaakaar naa ni cof di wéyal seen programme boobu moo leen jural tey ji nii nag ñu ngi nii di dem ci élection yi nga xam ne daanaka coowal fichier bi ñëwaat na euh, ñoom ñëpp ñu ngi wax ni fichier électoral bi fiableul euh, voilà euh, mandataire El Maître El Hadj Diouf génn ndax moom moo njëkk a dugg waa Malou moom moom moo njëkk a dugg dina dina ñëw dina ñëw nangeen ngeen wu moom dina ñëw jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taskati xibaar yi fi nekk wax ñu li nga xam ne moom la jëlee fële ci conseil constitutionnel xanaa ñu préparé wu balaa mu ñëw waay. Hmm? joxal libaas. Ah, voilà mi ngi noonu ah moom ah, mandataire ki nga xam ni moom moo di ah, Maître El Hadji Diouf ñu fàttali que ni moom nag euh, moom moo euh, njëkk jàll euh, ci contrôle des parrainages yi tey jii mi ngi noonu taxaw ñuy seen xam naa ñu dina si léegi léegi rek d'un moment à l'autre ñëw euh, daal di euh, wax lan la jëlee ci biir est-ce que jàll na li nga xam ni moom mooy état bu euh, parrainage yi am déet moom mi nga xam ni moom moo di mandataire ki la nga xam ni moom moo di maître El Hadj Diouf kon mi ngi bi ñuy waxee ak yéen jamono ji fii la nga xam ne moo di ci diwaanu conseil constitutionnel ci contrôle des parrainages yi kaay jël voilà ñoom nag ñu ngi <laughs> ñu ngi doon taxaw di di di di eh, ah. eh, exactement lan la ñu eh, jëlee si biir pour le moment ñu leen di xaar ñu ñëw ndax moom Me El Hadji Diouf jàll na étape bu parrainage waaw wala déet loolee son mandataire <laughs> bon. <laughs> la Hadjouf a validé un total de 43 505 avril il n'a pas attiré le nombre de kon moom El Hadjouf dañu ko dañu est invalidé. ah yaakaar naa ni euh, waaw. ñu ngi wax ci li nga xam ne moo jëm ci maître El Hadji ndax euh, a validé au total de 43 550 après régularisation il n'a pas mhm. euh, euh, kon dañ ko daal di moom maître El Hadji Diouf kon mi ngi noonu. waaw jàpp naa ni voilà. kon mi ngi noonu ñu xaar son après mu ñëw. Euh, parce que ñu ngi doon di concerté waa ñu ngi doon di waxtaan euh, ñu fàttali dem waroon na mottali ci lu toll ci trois mille et quelques parrain euh, moom Me El Hadji Ousseynou Diouf kon jamono jii nii en tout cas.

député du peuple euh, du mujjee euh, continuer li nga xam ni moom mooy euh, en tout cas <laughs> état bu contrôle yi parce que instant bii nii daal di nañuy seet fii loo xam ci li nga xam ni moom moo di yëf yi pour le moment ñu xaar son mandataire ba tey mu ñëw ak si jamono ji nii wax ñu naka la gisee yëf naka la jàngatee yefi parce que dina ci am solo bu baax a baax ci mbettel ndax amna ci mbettel wala déet muy surprise loole yëpp ñu ngi xaar mu ñëw janoog taskatu xibaar ñu laaj ko li nga xam ni moom laaj yi nga xam bëgg nañ ko ko samp léegi léegi en direct fii ci diwaanu conseil constitutionnel ñoom nag ñu ngi waaw xam di waxtaan ba léegi est-ce que li nekk na lu la bett quand même. waaw lu bu Maître El Diouf mun wax ni. Euh, bett na ma ndax démb fii nii ci presque euh, quatorze heures wala quinze heures la ñu jëloon ki nga xam ne moom mooy mandataire am gis nañu nii confiance bi mu àndaloon man bi moo koy laaj nee naa ko ndax euh, li nga xam ne moom mooy li ngeen yor ci parrain jàpp ngeen ni mën ngeen jàll fi nga xam ne moom mooy deuxième contrôle bi waaye waa ji daf ma fellum mu ne ma waxuma la deuxième contour euh, deuxième tour waaye nag ki nga xam ne mooy maître El Hadj Diouf moom mooy nekk euh, le président de la république et puis c' est le président c' est le candidat le mieux placé pour mu mun a nekk président de la république te ñoom ñoo nekk ci première position tam pour mun a dugg fi nga xam ne moom mooy euh, conseil constitutionnel. ñu jàpp ni li nga xam ne moom mooy euh, ay doublon externe mën na ci mucc par rapport ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw su suñ jàngat bi loolu la leen si indil moom dina moom moo gën a am chance que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk de dernière position maanaam ki nga xam ne mooy Thierno Alassane Sall waaye bu ñu gisee nii maître El Hadj Diouf lim bi nga xam ne laaj nañ ko mënu ko matali sax problème am na problème am na xam nga lu tax ma ne problème am na

so son mandataire mi ngi nii mi ngi mi ngi wax téléphone mi ngi wuy téléphone xëy na Me El Hadji Diouf lay woo euh, instant bi <laughs> du ñàkk ni moom rek la war a mën a jokkoo jëfi pour wax ko euh, xibaar bi nga xam ni moom moo tukkee file ci diwaan euh, file ci conseil constitutionnel en tout cas ak lu ci am manti am pour mbokki internet yi nga xam ne ñi ngi xaar yàkkamti nañu xëy na mandataire El Hadji Diouf ñëw parce que am nañu ci bari ñoo xam ne ñi ngi doon xaar Me El Hadji Diouf fan lay mujjee ci li nga xam ne mooy état bu parrainage bi mi ngi noonu son mandataire na mais ba tey mi ngi wax téléphone moo tax xëy na mënagul agsi ba tey ci taskatu xibaar yi ñu espé ñu espère nag que cette fois ci ni génn yolleeku feer di yolleeku mën na bañ a amaat comme ni ko yenn ci ay mandataires doon defee la moom moo ko démb démb fii la taxaw nee na ñun lay démentir ni euh, keroog bu ñuy génn ñoom yolleekuwuñu parce que dafa fekk ni seen oto bi ci beneen côté bi lañ ko gaare mu ne mandataire nag boo génnee fi nga xam ne mooy euh, conseil constitutionnel lan rek ngay jàpp mooy dem sa oto continuer tranquillement ñibbi donc euh, <laughs> même même bu fekkee lay bobu dëgërul ndax mandataires yëpp xam nañu taskatu xibaar yi fu taxaw ñu bëri buñu génné dañuy songu taskatu xibaari jarul sax taskatu xibaari yi di leen woo euh, kaawu maître El Hadj Diouf nag parce que dégguma len benn yoon fi nga xamné ñu ngi doon ñaawlu li nga xamné mom moy fiabilité fichier électoral ñom dañuy japp ne fichier bi dafa bax way waxtaan bi nag mënuñu ko def légui ni ba après élection tey ni buñu démé ba gis ni ki nga xam moy maître El dañ ko recalé euh limay que moy jakarlo ak maître conférence de presse mu na wax lu jëm ci fichier rek ni actuellement waye nak, euh, xamna fi ba ci kanam danaka fi, euh, suba wala gannaaw suba dina bëri ay conférence de presse te ñi nga xam ne ñoom ñooy mandataires yi wala démb xam nga démb wax na ci lu mel noonu moom mu jàpp ni amul rëq-rëq dara ndax tey dina maintenir ses mêmes <laughs> xalaat bi ci la <laughs> xam ni wax nga ko voilà parce rek eh, après ñu ngi ci commenté le fait que euh, beaucoup de candidats euh, wax ni euh, fichier bi ni ñuy logiciel bi am na jafe-jafe am na rëq yu ñu ci war a joyanti ñoom ñu taxaw ni amul jafe-jafe tey ñu xëy ñu récalé leen ndax tey bu ñu dikkee ñu sampaan leen sampaat leen laaj yu ni mel danañu

maître El Hadj Diouf nag euh, li nga xam ne moom mooy candidature am dañ ko invalider. voilà euh, kii euh, Touré ma ma ñu fàttali après ñu dellu soit ci yow que ni après Me El Hadj Diouf Rose Wardini moom moo war a jàll après Rose Wardini Idrissa Seck Alioune Mamadou Dia Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Mouhamed Boun Abdallah Dionne. Euh, Aliou Camara El Hadj Malick Gakou Pape Momar Ngom ñi ñoo war a jàll kon El Hadj moo nekkoon euh, ki njëkk a jàll Rose Wardini moo ci topp Idriss Seck moo nekk troisième Aliou euh, Mamadou Dia nekk quatrième Serigne Boub cinquième Pape Djibril Fall sixième Mamadou Lamine Diallo nekk septième Mouhamed Boun Abdallah Dionne huitième Aliou Camara neuvième El Hadj Malick Gakou dixième Pape Momar Ngom onzième ñi ñoo war a jàll si suba si pour ñi nga xam ne ñi ngi réclamé bu ba léegi seen ay seen ay candidat waaw Kébé dafa melni luñu luñu ñu la lu ñu lu ñu ñëw toujours dañ waxon ni c'est pas parce que li nga am ci lim ci ay nit yi nga wara remplacer dafa néew nga japp ni yow di nga jall facilement maître El Hadj Diouf dem xol kaam ci ay 3000 la. 3000 mhm. ci tegu léegi ñëw xalaatal ki nga xam nak mu ngi ci ay 8000. 13000 ay